billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil alamina wasalaatu wasalaamu ala almabuuthi rahmatan lil alamin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi ajmaina ixwat al imaani wal islaami wal ixsaani wal iraadati asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki M Media Group nuuru daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa di leen siyaare di leen dokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala nanguñu suñu jaamu yàlla te jéggañu suñu rëcc-rëcc bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di siyaare di leen dokkeel ci weer wu sell wu tedd yi ñu nekk di ñaan yàlla subhaanahu wa taala fekke ko déwéni bi jaay sayyidul wujud te luñ ci jaamu yàlla rek yàlla nungul ñu ko fulal ñu ko te it jigéen ñi ci suñu rëcc rëcc yépp nag yi ñu xam ak yi ñu xamut yi ñu tay yi ñu tayut yi ñu yëg ak yi ñu yëgut yi ñu def ak yi ñu defagut yi ñu ci xam ak yi ñu ci xamut yépp daal lu man di doon ñoo ngi tuub di ko jéggulu yàlla di ko ñaan mu baal ñu ko ci ndimbalam ak yërmandeem ak i xewalam bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallama di jël ziar boobu rek ak néew bi di ko teg ci loxol kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jot lu ñu ko mbokk yi bokk liggéey bi yëpp rek bu ko defee kon te ñu jéem a ñëw ci liggéey bi rek muy fatwa bi di fi jéem a du laaj yi nga xam ne yi moo fi jot a rot di ñaan yàlla dool ñu jàppale bu baax bi jaay muhammad sallallahu alayhi wa laaj bi nu fi jëkk am tey wala ya laaj yi nu fi am daal tey sunu sëriñ al oustaz Aliou Badara Ndiaye mbal mi moo ko fi yónnee ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel moom laajam bu jëkk tey day laaj naafile nga xam ne moom la def ci weeru koor wi ñu di ko tudde salaatu taraweex ak naafile yi nga xam ne sunu sëriñ a cheikh Souhaïbou Mbacké da ko def ci ak góorgóorlum ci liggéeyal diine ak liggéeyal islaam mu di ay naafila yoo moom it tànn euh, gi andil ñu ko muy naafila yu ama am solo yu baax a baax yu barkeel lool muy laaj nag naafila yu nga xam ni moom la indi teg ko euh, te mu am solo lool ak naafila yi nga xam ni moom la Seydina Muhammad teg Euh, bu fekkee ni dañuy julli dañ koy julli julli mbooloo maanaam naafila yooyu bu fekkee dañ koy def julli mbooloo ci weer wi muy laaj ndax ñuy def naafila fukki raaka yooyu moom lañuy ñuy war a def walla mën nañ ca jël naafila yi cheikh boobu di cheikh sooy bu Mbàkke waaw loolu daal liñ ko ci wax mooy naafila buñ ko def ci mbooloo ci weeru koor wi li nga xam ne lii mooy sunna dëgg dëgg daal mooy comme bu dee mbooloo lañu daal ñu defe ko comme ni ko euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa doon ko defee te mooy fukki yoo xam ne yii moom lay doon ñu teg ca shafa ak witër ndax loolu mooy sunna te yaakaar naa ne ñun li ñu war mooy euh, euh, yàlla bu yàlla digalee mu jaar ci yonente ba yonente ma loola mu leeral ko eh, defe naa yooyu la ñu war a jiital daal eh, doog a jël lépp loo xam ne dañ ko cay tegaat ca ginnaaw ba boo defee daal eh, li nga xam ne lii daal mooy gën ci bu dee jullik naafila la ci weeru koor wi ñu roy ci Seydina Muhammad defe ko nam ko doon defee du tere nag koo xam ne nii xañ na mënoo dem ca mbooloo ma di naafila ba tax ngay berse naafila ak bopp moom su la neexee euh, naafila yooyu mën nga koo jël ndax lu am am solo nag lu baax a baax la itam waaye itam du boo demee ca mbooloo itam def naafila goo nga xam ne gi moom la def fukki raka ba pare euh, ñëw nag beruwaat di julli julli naafila yi sëñ boobu yi tamit euh, day gën a baax rek day gën a baax rek ndax booy xool buñ ne nañu jéem a taxawal naafila yi moo xam yoo xam ne moom noonu la ko Seydina Muhammad doon defee dafay fekk ne fukki rakka la yoo xam ne yi moom dafa fixé wu saa ne lu dul ci weer koor sax dañ ko war a def waaye yi nga xam ne sëriñ bi da koy def boo koy xool yi day nekk ñeenti rakka ñi nekk ay ñaari rakka maanaam doon rakka yoo xam ne daal yu fixé la yoo xam ne yii bu fekkee ne da nga doon julli mbooloo man nga ne nangami rakka lay doon ñoo xam ne saa ne moom la julli waaye gis nga rakkaa yi dafa wuute lool ci ëb lim moo tax daal ci niñ ko gisa daal mooy ku ko mën daal bu fekkee ni julli mbooloo la ñu dem def ko fukki rakkaa wut ku leen jiite waaye tam du tere ku bokk ci julli boo ci jógee su la neexee naafila yi nga mën koo def waaye tamit su fekkee ni demoo ca ju ca mbooloo ma itam mën ngaa jëla sa bopp naafila yooyu nag boo ko defee boo ko defee mu doy sëkk nag ak naafila waaw kon daal nañ ci defaate gëstu bu baax a rek beneen laajam bi ci topp muy comme weer wi ñu nekk muy weeru koor te yàlla ne koo xam ne kii danga nekk ci tukki walla nga feebar may nañ la nga bañ a woor ba yeneen jën yeneen jamono maanaam ba koor gi jeex nga fay bés yi nga xam ne yii wóoroo kon muy laaj nag ki nga xam ne kii day tukki Euh, ndax moom mu woor moo gën ci moom wala mu ñàkk woor moom la war def moo gën ci moom loolu it lañ ko ci wax mooy dañ koy wax le ay bi jeexal rek bi mu wax ci wàllu koor muy wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamuun yàlla su yàlla subhaanahu wa bi muy wax ne man maa farataal ci yéen koor mu nekk ay bésu limu maanaam muy doon weer ne it daal may képp koo xam ne ki yaa ngi tukki te xam ne tukki dafa métti wala nga feebar ba koor gi di diis ci yow di mitti ci yow mën ngaa bañ a woor te bu koor gi jeexee fan yooye nga fay ko waaye tamit bi muy dem di wax ba ne ñi nga xam ne ñi dañoo dem sax ba àgg nañ ci seen kàttan mënatuñ ko bu ñu wooree dañ koy boole di njàngoonteeg coono yu mittee mittee mitti ñooñu koor gi da di wàcc ñuy def fiddiya waaye gis nga bu ñu toppee aay di ko xool ba muy lim dafa dem ba ca xaw a mujj ga mu ne wa an tasuumu la lakum in kuntum taalamun yooyu yëpp bi mu ko wax ne daal su ngeen ko mënee nag ngeen woor mooy gën kon jéem loolu la ko yàlla waxee noonu eh, rek lu fay demee mooy ku ko mën daal moo xam da ngay tukki waaye boo wooree koor gi du la lor loraange boo xam ne kii bu fese fese day doon da nga feebar waaye feebar bi terewul nga mën a woor daal sunu borom subhaanahu wa taala ne ne ku ko mën a woor daal nga woor ko ci biir weeru koor wi moo gën distance bi nga xam ne bii maanaam kilomètres yi nga xam ne rek moom la ñu tëral ñuy jàngale fex ngir kuy tukki tukki bu toll noonu mën a euh, bañ a woor mooy ñiy jàngale fex ñun dañ cee gis ñaar yoo xam ne dañoo wuute ndax am na ñoo xam ne dañ ne quatre-vingt-deux kilomètres lay doon ñeneen ñi ne soixante-douze kilomètres lay doon ñi dañ ne juróom-ñett fukki kilomètres lay doon ak ñaar ñeneen am na it ñu ne juróom-ñaar fukki kilomètres ak ñaar lay doon nga xam ne seen diggante dala wuute gi euh, am nañu différence ak fukki kilomètre kon daal laajam boobu it euh, loolu rek lañ ko ciy wax muy bu nu sukkandikoo ci ayat alxuraan boobu kon ku ko mën nga ngay woor wala ko tukki ga wala feebar ba day gën waaye itam kilométrage it noonu la maanaam juróom fukk ak ñaar bu la neexee nga jàpp loolu ñoo am nañu wax juróom-ñaar fukk ak ñaar beneen laaj muy laaj ci wàllu julli la koo xam ne day julli di sikk sàkka li ma rakkayam julli xamatut nu mu toll masalan mu nekk ci biir jul gi di xalaat ndax man ñaari rakka laa julli wala benn wala ñetti rakka la julli wala ñaar loolu moom lañ ko jox mooy kuy julli di sikki sàkka ca limab rakka ya xamatoo nu mu toll maanaam da ngay jàpp la gën néew masalan su loolu ni da ngay julli ba ci si ngay xalaat naan man ñaari rakka la julli wala benn jàppal na benn nga am wala nga ne man ñaari rakka wala ñett jàppal ne ñaar nga am wala ñetti rakka la am wala ñeent jàppal ne ñett nga am saa bu sikk saaka duggee daal da ngay jàpp lim ba gën a néew nga jàpp ne li nga am ci ay raka te julli la ca topp soo jullee nag ba noppi ba sëlmal daal di sujud sujudu sëf yi moom ci wàllu limam raka ku ko def ci biir ak julli rek dangay jàpp la gën a néew te mottu di sa julli soo paree daal di sujud sujudu sëf yàlla ñu yàlla doole defal tawfiq bi ñooy Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam